السميع العليم من ñu yàlla julli ci sang-sang yi sayyiduna bi ñoo ngi yëkkati nuyoo bu gën a sell nuyoo bu gën tedd man ak sama ñaari naataangoo yi ma àndal mooy le ministre ki nga xam ne moom lañu ñu dénk cadre de vie ak secretaire d'État bi yore logement yëkkati kàddu jottali nuyoo nuyoo son excellence monsieur le président de la république jottali nuyoo membre gouvernement bi yépp ñi nga xam ne ñun ñoo leen fi toogal di sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu ñëw fii ay yoon yoon ren ñu ñëwaat fii ci anam bu bees ngir barkeelu ci li nga xam ne moom lañ dégmal mooy màggal bi di bés bu màgg ci réew mi di bés bu màgg ci àdduna bi man ak samay naataangoo dañoo décider fépp fu ñu war a dem yóbbu sunu asaka yéene ci wàllu jàppale ci liggéey yi dañoo fas yéene ànd ànd ñëw bokk ko ak yéen ci wàllu préparation bi comme ni ñu ko président de la république santé coordonnateur UCG wax na léegi sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu xalif général des Mourides di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak gudd fan mu yàgg fi lool ci kanamu njaboot gi mu yàgg fi lool di ñaanal réew mi di ñaanal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ki nga xam ne nag moom mooy suma naataangoo le ministre bi nga xam ne moom lañ dénk cadre de vie ci yéeneem ci xam li li ñu wax li ñuy wax solidarité gouvernementale dafa dajale ay moyen yu bari UCG bi lim na ko léegi ñu boole ci sunu asak yéene ñu ñëw jébbale ko pour que liggéey bi nga xam ne moom lañuy def avant pendant et après màggal gi liggéey boobu mën a jaar yoon ñoo ngi sant yàlla bu baax maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi koy sant encore une fois di ko gërëm ci cër bi nga xam ne yëkkati na ko teg ko sama loxo fépp fu ñu ànd dafay ne Abdou Karim jiitul mm-hmm. du ma fi yëkkati kàddu damay seedeel mbooloo mi nit ku baax la dama koy seedeel mbooloo mi dëgg nit ku mun a maye cër la maye cër nag du mm-hmm. dindi dara ak cër bi la yàlla jox mm-hmm. monsieur le ministre maa ngi lay gërëm bu baax ñu santaat yàlla waaye occasion ngi nii pour jaa jëfal son excellence monsieur le président de la république ci liggéey yi muy def ci këru diini yi rawatina fii ci Touba. buñ ko naree lim duñ ci génn waaye yéene moo ëpp solo jëf te ñun ñëpp xam nañ ne président de la république yéeneem ci Touba ñoo ngi lay ñaan di ñaan xalifa bi mhm. ngeen continuer di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla yàlla oyofal ko yenn bi nga xam ne moom la ko senegaal yenn mu àggali lépp ak sagoom ngeen ñaan li nga xam ne moom mooy mbas mi di balaa bi fiy ganesi yàlla daxal ñu ko génneel ñu ko ci réewu jullit ñépp génneel ñu ko ci réewu Sénégal génneel ñu ko ci àddina bi yépp am nañ ci yaakaar man nag du ma noppi di ko wax banqaas bi ma président la république dénk saa yu ma ñëwee fii ci tuubaa sama xel sama xol day sedd ku jaar ci ñaari allées yi gis liñ fa jëmbat ci ay kokku ci Hmm. te Touba nekk dëkk boo xam ne ñu bari walla ñépp fi ñëw loolu buñ ko gisee sëñ bi dañ koy rafetlu jaajëfal leen xam naa ni liggéey bi nga xam ne moom lañu président de la république sant muy senegal nekk vert Sénégal gën a naat Sénégal gën a set yéen a ngi ci yéen a ngi ci guddi yéen a ngi ci bëccëg loolu nag témoignage boobu war nañ ko fi wax di ñaan également ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu mbokk sénégalais yi nettoyer baax na waaye ñàkk tilimal moo ko gën ñu góor góorlu bu baax ci jëmbatum garab ñu góor góorlu bu baax ci setal sunu dëkkuwaay sëñ bi loolu laa bëggoon a jottali ci tur bi nga xam ne wax naa ko sànq ñi ma àndal di yeesal sunu sunu ziyaara bu baax di yeesal sunu ñaan mu jëm ci kilifa bi yàlla may ku wér moom ak njabootam yàlla may ko gudd fan mu yàgg fi lool bés bu màgg bi bi ñu dégmal muy màggal yàlla nañu yàlla may ñu teewee ko ñu teewee ko ci dal ñu teewee ko ci tal ñu teewee ko ci jàmm ñu dugg ci génn ci jàmm ak salaam comme ni ko sëriñ bi yéene comme ni ko sëriñ bi di ñaanee guddi ak bëccëg képp ku fi seqi tànkam yal na ko yàlla fayal boppam sëñ bi loolu la amoon ci ay kàddu waaye maa ngi nuyu bu baax monsieur le maire di nuyu également monsieur le ministre ki nga xam ne mooy sama trondo Abdoulahat sëñ Abdoulahat di jàmbaar ci wàllu environnement réunion bi ma njëkk a def ci ministère bi pour saytu mbirum environnement dafa ñëw jëmmal bés boobu loolu duñ ko mës a fàtte mu ngi bay waaram bu baax a baax ci wàllu environnement environnement nag ak cadre de vie frontière amu fa loolu moo tax ci ndigalu président man ak samay naataangoo yi ñu ngi joxante loxo di liggéey guddi ak bëccëg pour que yéene bi président am ci réew mi yàlla mottalil ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu